a jokko njal a bàkk ba jub na fii ci ab matuwaay bu am di xam ne rek ne gàmmukat du mun a am atum noonu la ko defee woon atum bi nag même démarche yi amoon rek la amaat ndax démb ci altine bi njabootu Maam Maodo nag jot nañ dajee ba indi ci li nga xam ne mooy leeral ci gàmmu Tiwaawoon bi nga xam ne taali bi ko doon xaar ndigal ba nag jib na xalif général Sénégal jot na joxe ndigal ginnaaw bu ñu waxtaanee ñoom seen biir entourage beeg ñi nga xam ne seen xam-xam wàcc màccu na ci wàllu médecine ginnaaw bu ñu joxee xibaar bi daal lu ñu xam ne mooy atum 2021 bi tamit gàmmu Tiwaawoon du mudd antu ndax nag lu ko waral mooy mbas mi boobu ba léegi ni rek li nga gis ne Sénégal xam ne coronavirus bi mu ngi wulee ñaay raw dina ci àdduna wërngal këpp ba tax na sëriñ bi daal mi ngi ñaan taalibe yi daal ñu xam ne daal atum 2021 nañ jàpp ne atum 2020 moom lay melaat donte nag ñëpp nam nañ li nga xam ne mooy Tiwaawoon li nga xam ne nag mooy gàmmu googu nga xam ne moo nekk guddi gi nga xam ne moom la ñuy tagg ki nga xam ne mooy Rasulullaay ñëpp nag di ko waaj bu baax a baax a baax donte ndax nag digg ba jib na lu ci am ba am daal moo ko ne Tiwaawan nag waxaguñ ci lenn loo xam ne lan lañ taxawee ci atum 2021 nag ay matuwaay xool beneen méthode su ko defee nit ñi kat mën a fàttali ko foofee ci Tiwaawan li nga xam ne moom la ñuy def chaque année ci gàmmu amee rek di tagg li nga xam ne mooy rasulullaay atum 2021 ndigal bi jib daal mooy ne atum ak gàmmu bi daal du munta am ñu ngi sant bu baax a baax nag ki nga xam ne mooy xalif général des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour yàlla bàyyi fi bu baax a baax a baax mu motal liggéey bi nga xam ne moom lay sumb liggéey Maam Maodo Malick boobee nag dem na sa ndugg seen fekk ji ay moromam activiste li ci mel ni Simon ak kilifa ginnaaw yenn information yi nga xam ne jotoon na ko def ci face li nga xam ne nag moo demewul noonu ba tax nag mbir mi bëri coow lool ginnaaw nag ba mu demee nag moom moomee dañ yi nag lañ doon a jàkkaarloo li nga xam ne mooy juge deuxième cabinet bi xamaguñ nag lan moo fay undu waaye li ci am daal mooy jàppale leen ne ki nga xam ne nag moo nekk dossier bi bokk foofu ca Fouta Yooni ab mouvement boo xam ne Fouta Yooni la bokk mu nekk Mamadou Sarr di Mara Mara nag dafa jotoon am ak coow ak ki nga xam ne mooy Fatoumata Ndiaye Tampi moomee nga eh, ba ñu waxee ne Fatoumata Ndiaye Tampi kat dafa ma mbir mi bëri coow lool ñoom ñaar ginnaaw ba ñu jotante euh, Mara moomu nag jotoon na génnee ay kaddu di xam ne rek ne Fatoumata lu nekk daal la ko yekkoon teg ko ci kaw Fatoumata Ndiaye Tampi moo njëkkee woon mbir mi ca wàllaa ba nag Mara jéggulu woon na ki xam ne moo nekk Fatoumata Ndiaye Tampi waaye mbir mi dafa mu nekk tribunal euh, attekat bi nag mujj a dóor ki nga xam ne mooy Mara six mois de sursis euh, ginnaaw coow laa nga noonu ñu wax leneen loolu benn yoon ba tax na nag internet yi démb dañoo mel ni ku dof ah, démb daal lañ xam ne nag ne Sénégal daal ndekete ñoom ñëpp seen liggéey daal ah, ci internet lañ ko wékk ndax ginnaaw ba Facebook doxute ah, ba 17 dañoo dofoon ay Sénégal lii daal moo tax daal woykat ba naan daal réseaux sociaux daal yàq na réew bi ñu wax leneen du réseaux sociaux waaye tamit information bi nga xam ne si réseaux sociaux la jógee démb ci guddi gi ay une jàpp deux heures ab information information bu bona bona bon lañ tëbbal ci li nga xam ne mu nekk ci internet bi te du gulleet ñu gis yenn ñi nga xam ne ñoo nekk journaliste yi di ko def wala ay soi-disant ay site internet yoo xam ne ñoo nekk ci net bi euh, di partager yenn information du samay wax waxu internet yi la nee nañ xanaa ñii du ñu déglu wax ki nga xam ne mooy wéykat bi yàggu dara génne na ab woy bu mag a mag euh, tuddee ko teeyal muy Viviane Sidi Ndour woy bu am solo boo xam ne jàngale di xam ne rek ne Moustapha Niass président assemblée nationale moo fi bàyyeekoo génn àdduna te loolu doonul benn dëgg yàlla na ko fi yàlla bàyyi bu baax a baax a baax ànd nag Sénégal soxla na ko wax ñu nga xam ne nag li nga xam ne mooy 33 3 ans wala 35 ans moom moomee dafa xaru maanaam ba mu naanee li nga xam ne mooy acide daa jël ab buum takku ko far yàlla mu dem wuy ji suñu mu nekk nag lu métti métti xamaguñu nag lan moo waaye lu ci am ba am daal jàppale ne waaja daal génn na àdduna foofe ca derkele d'après xibaar yi ñu amee ci suñu ay naataango waa Seneweb ñu wax nag li nga xam ne mooy wàllu showbiz musique woykat bu mag bi Youssou Ndour mu ngi ñëw yàggul dara maanaam weeru novembre mi bu yeboo ngeen jàpp ne Youssou Ndour dina génnee album bu bees bu mag a mag a mag bokk ci nag ay concert yoo xam ne yu mag a mag lay def lu samay wax waxu ki nga xam ne mooy journaliste a a a rek ne euh, film boobee dee du Pod ay Marichou amoon na ñaari acteurs yu ci nekkoon lu ci mel ni ak ku jigéen ki turam bee la te euh, euh, m la moom moomee sax ginnaaw nag ba mu biiree dafa demoon louer ab appartement te bañ ko ngéntee yàggul dara waaye nag nee na loolu xale bu góor bi demoon na ñaani xale bu jigéen jigéen bi waaye famille xale bu jigéen bi ñoo bañ mbir bi nag xewee fa lu ci am ba am du samay wax waaye waxu journaliste people bi la moom moo am a ah, a ah, ah, nag a ñu fekk mu ne na ma kéttim ket na mu yóbbu ma ndugg si ndax nag Sénégal bu yeboo nit ñi di bu baax a baax lan la ñuy wax mbokk yi nes tuut ñu seetaan vidéo du liggéey bi sax laay gën a wax dañuy guddee liggéey parce que lu ci ëpp ñun guddi la ñuy liggéeyee comprendre nga ndax man tey mère de famille laa dama am doom journée bi damay toppatoo sama doom peut-être damay dem defi lii damay dem defi lii moom aussi peut-être guddi lay am temps pour liggéeyal ma man suñu liggéeyul moom daf may seet man ma seet ko parce dañoo nekkoon dañoo nekk donc man su ma su ko bëggee seet sax ma koy seet si moom suma ma bëggee seet sax may seet si mais bu dara ñu waxtaan après bu paree mu ñibbi këram comprendre nga. mbokk jër jërë ngeen jëf lii leen fi indiloon seen taxaw seetlu di leen sant di leen gërëm di ñaan jàmm ci réew mi di leen wax na leen wooy leen di abonné fii ci Dakar Live TV jërë ngeen jëf.